ñu ngi leen di nuyuwaat ba beneen yoon te nag yàlla dogal na ñu ñu ñëw fii géejawaay tase fi ak euh, champion muy muy muy soq nekk euh, mbëru mbëru Pikine kenn mënul wax làmb Pikine te te tuddoo ko mu mu mbokk si ñi ñi nga xam ne làmb euh, am am na si ñoom espoir bu baax a baax a baax donc soq ñu ñoom tey daje fii la lan lan lan mooy tey tàng tey déjà. waaw avant dañuy wax onze bi la bisimilah inna wàll yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di ñaanool suma yaay gudd fan wér gu yaram di ko ñaanal suma famille di ko ñaanal bépp doomu aadama bu yeewoo ci kaw suuf yàlla na ñëpp am jàmm ci barke yonente bi waa lii sama tànk fii suma doomu nday suma xarit Abdou Sène mooy ngénte xam ma teew fi ñëw fi ndax moom suma waay la loolu rek moo ma indi tey géejawaay soq bu ñu ko ne xam na ne daaw waroon nga am komba yàlla dogal euh, kii mbas mi ñëw combat bi mu am mais mbër mu jël avance ba pare war a bëre bëre woo ci condition yi dem bëri ñu ne suba la wala une semaine la bëre woo loolu tam noo noo ko dundee champion. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek avant tout dama ciy masaw ki nga xam ne mooy promoteur bi mooy Baba jaw ndax ku masawu mbër mi rek waroon nga jiitoo ci promoteur bi moom mi nga xam ni lépp moom la. moo débloqué ay millions def ko ci mu demee noonu dañuy sant yàlla rek ñun ay taalibi suñ Tuubaa lañ du ñu xëcc lu gënul si ñun ndax suñ Tuubaa lañ gëm moom lañ yaakaar àddina ak alaxira lépp lu ñëw rek dañuy gëm ni lii lu gën la suñu borom def na ko préparé nañ ba ñu suba la ñuy bëre mu demee noonu munuñu si dara ndax du coobare Gamou Gueye du coobare soq du coobare promoteur bi du coobare kenn mbirum mbas la boo xam ni tey kenn mënu ci dara dañuy ñaan yàlla xam nga comme ni ko gars yi waxee rek mu jeex ba affaire yëpp reprendre ñu nekkaat ci activités yi yàlla dogal ñu bëre man ak Gamou Gueye ma daan ko dem xooli leneen incha allah. Euh, ndax euh, boo waree bëre bëre woo waajtaay bi naka la yow euh, est-ce que am ngeen assurance ne bu yàlla dogalee CNG bi si si ñi njëkk a bëri ngeen di bokk est-ce que am ngeen assurance boobu yéen. non incha allah loolu moom amul sax xel ñaar parce que tey ñun biñ nee suba la ñuy bëre la combat bi yàqu. Mhm. tey siki saaka man leer na ma ne bu ñu démarré bu ñu nee suba la maay bëre te maa ngi koy préparé maa ngi toog di xaar di ñaan yàlla lépp sedd ci jàmm ak salaam ba ñu fekkee ko tal ko maa gàmmu goy ñu bëri dem xooli leneen ndax ay ndaw lañ te franchement métti na combat boo xam ne ñu ngi koy waajal deux ans benn avance du suñu avantage ndax ay responsable lañ ay xale lañ mais dañoo yor ginnaaw boo xam ne tey si ñun lañ yaakaar comprendre nga ñu ngi ñaan rek xam nga gars yi jàpp si bàyyi affaire yi mu sedd ñu bëre xooli leneen incha allah. ma bëri ak gàmmu gay daan ko xool leneen mu mel ni yomb na de ci wax est-ce que noonu la yobbee ci ci jëf gàmmu gay ku ne xam na ko ku ne xam na la kenn waxatu la waaye moom it du du ngaaka champion la technicien la lu tax nga ne da ngay ñëw rek daan ko doon comme ça. waaw non man chaque jour moom ku déglu samay communication sama diggante ak gàmmu chaque jour dama leen di confirmer ni gàmmu gay champion la ndaanaan la ndax tey daa wane ay preuve am mu doon xale bu sawar bu mën a joxe ci biir géew. man tamit gëm naa ne tamit loolu mu bëgg noonu lu mu ci bëgg benn bëgg naa ci quatre-vingt te gëm naa ne Gamou Gueye bu arbitre poussé sama loxo loxoom sama diggante ak moom maanaam dañuy jëflante ba mu neex waaw que le meilleur man li ma mën mooy ñaan am ndam te yàlla na ma suñu borom defal ndam te gëm naa ni bu ma bëreeg Gamou Gueye dinaa ko daan incha allah. boo nekkee espoir bi si si biir Pikine champion espoir ñun ñu lay tudd fi fi ñuy tuddee ñoom Ama ak ñoom Modou Lo ñoom ñoom ñoom Eumeu Sène biir Pikine mais coow li bëri benn moment euh, soq dafa bàyyeeku soq dafay fo soq loolu noo ko du du dundee moment yooyu. waaw sant yàlla loolu mënul ñàkk ci carrière ndaw buy dem parfois loolu dëgg la di nga toll moment boo xam ne da nga yaakaar ni barke alxuraan karim bu Balla Gaye taxawee sax danga nga koy jàpp daan ko dem sa yoon gëm-gëm boobu mooy nekk ci yow parce que loolu mooy nekk ci yow te ba tey moo nekk ci man. comprendre nga mais dina toll moment boo xam ne maanaam làmb da lay yee yàlla bu la bëggee dëgg day am fu mu lay tegee nattu foofu mu la koy tegee nag boo dee doomu aadama dëgg war nga mun a xam ni carrément man dama doon bëri di daan facilement su ma demee ba yàlla suñu borom xañ ma tey war naa mun a jàpp ni tey fii ma jëm nii yoon bu metti la te fulla ak fayda moo fay yeggale nit yàlla won nañu ko xam nañ ni tey li des ci làmb amatul caaxaan fulla ak fayda moo fay yóbbu nit yàlla na jàmm yàgg rek. ndax yow kon da bëgg a confirmer foofu ne yow dafa am ay ay erreurs yoo def yoo yoo reconnaître yow. non erreur yu bari. erreur yu bari dama ko def ci sama carrière muy xale la muy bëreeg sama morom ak manière di leen daan ak manière comprendre nga maanaam tey boo tolloo niveau boobu noonu ndimbali yàlla suñu borom dëgg moo lay teel a jàllale mais comprendre nga comme tey xam nga ñëw nañ demee na nii yàlla am lu jaarale suñu carrière comprendre nga ñu xam ko reconnaître erreur yi ñu def yëpp ñu rattrapé waat ko jëli ko te incha allah rabbi ci kàttanu yàlla képp ku ma mës a ci làmb suma ma jëflanteeg yow ba pare boo demee sa gàlle di nga xam ne xale bi ma doon jëflanteel jàmbaar la te fu bëgg a nekk ndaanaan ci làmb kenn mënul wax la euh, làmb ci euh, ci dëkk bi Sénégal te waxuloo Pikine loolu wax naa ko ba pare mais mu am fa ay ndaw yu fa ne mais coow li xaw a bëri Pikine coow li euh, am am am am Ama indi Boy Niang am Eumeu Sène indi Tyson mais loolu ba booy nii loolu du noo ko jàngatee en tant que mbër. waaw loolu mënul ñàkk ci réew. parce que xam nga dëkk bu ay ndaw nekk. ba pare bari ay champion. mënul ñàkk ay détails. am na géejawaay am na parcelle am na fépp comprendre nga mais nit ñi nañ xam ne àdduna mooy doxee noonu da ngay bokk ak nit nday ak baay sax nit ñi duñ leen bàyyi loolu du ci champion yi du ci Eumeu Sène du ci Ama Baldé du ci Boy Niang du ci sook maanaam benn supporteru Sokh la bu faral Sokh xër ci Sokh yaakaar ne Sokh kese mooy ndaanaan loolu mooy indi problème yooyu yoonu yëpp mais du ay problème mu ay adversaire ak wala ay kii ak nangam nangam gis nga fii lu waay ñàkk moom ngay jëriñu te yàlla suñu borom noppi na. li nga moom rek nga mën a jël dem li keneen moom da nga koy bàyyi ak moom ndax yàlla jëlul wërsëgu kenn boole koog sa wërsëg boole koog lépp taxañ jox la ku nekk li la yàlla jox doyloo ko te gars yi ñuy ñaanalante yenente jàmm loolu moo ëpp solo lépp waaw. soo déggee ku mel ni Balla Gaye taxaw ne ñi mu daan ak ñi ko daan ñëpp dañ ko ragal même y compris am Sène ndax yow jàpp nga ne Eumeu Sène war na mën a ragal Balla Gaye champion. non yooyu noonu moom xam nga c'est des détails xam nga lu ma la man Balla Gaye dama koy bàyyi Eumeu Sène tontu ko comprendre nga man li ma gëm mooy Gamou Gueye laa war a bëreel damay xool nu may defee pexe pour daan Gamou Gueye Eumeu Sène ak Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ ay champion lañ bëri nañ Eumeu Sène daan ko ñaar yoon Balla su taxawee ni Eumeu Sène da koo ragal am na ci droit mais ndax loolu moo am waaw mais nag li may wax laay waxaat Pikine laa dëkk taxul may ŋàññi mbëru jàmbur comprendre nga Balla champion la Eumeu Sène champion la ñoom yegg nañ ci làmb ñun ay xale lañ ay détails yu Eumeu Sène leen di ñoom ñu lijjanti ko seen biir. amul pour ñu jeexal yow tam parce que en même temps dañ lay introduire si bi combat muy Ama Baldé Modou Lô dañoo gis waa kër technique am ne ama am amu amul wala technique pour pour mën a jaaxal jaaxal ki nga xam ne mooy Modou Lô ndax ndax jàpp nga ne am na lu lu Ama mën ci ci Modou Lô <laughs> kooku pël bi ku ne xam na ni champion la. maanaam maanaam maanaam wax ji lu muy bari bari yëpp ak coow li muy bari bari yëpp Ama Baldé champion la te xale la boo xam ne képp kuy jëflante moom di nga xam ni mbër laay jëflanteel di nga ko waajal ni nga ko war a waajalee comprendre ga ndax mbër la champion la liñ laaj ci mbër yëpp mu ngi ci moom te dafa bëgg nekk li Modou nekk muy roi des arènes yàlla na combat bi am ci jàmm Ama Baldé am ndam ci kaw Modou Lo. su Modou Lo ak Ama Balde day daan loolu laa bëgg li ma bëgg man sama biir xol mooy bu arbitre sifflé Ama Balde daan Modou Lo waaye daan Modou yombul ndax Modou sampion la ndaanaan la jëflante nag ñëpp mais dama la bëgg xamal ni la xale bu nekk ci yoon doon ndaw yàgg a rêvé nekk roi des arènes titre bi taxaw ci kanamam da koy jaral li may ñaan mooy combat boobu noonu bu dee benn ndam la yàlla na ko suñu borom dénk Ama Balde. waaw di wax na gars yi buñ jël làmb bu ko yóbbu fu mu yeggul parce que sport la buñ fayee Gamou Gueye fay soq ñun ñaar lañ fay nañuy ànd ak dal di rafetal kàddu yi te xam ni tamit làmb day jeex Gamou Gueye ak soq buñ jëflantee ba pare duñ ay ennemi comprendre nga supporters yi na nañuy demee esprit boobu làmb amul violence warul sax am violence man pour man loolu laa gëm yàlla na ñëpp am jàmm ci barki merci beaucoup kon euh, loolu loolu soq donc nekk euh, lu pikin donc euh, doon addu ci kombaam yàlla dogal aussi mu doon def yenn analyse yu am solo ci combat yenn yi nga xam ne donc day opposé ay mbëru Pikine ak ak yeneen mbër donc ñu ñu ngi leen di gërëm di di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf merci. avant tout waaw li ma si dolliwaat rek mooy tey maa ngi jaalewaat gàmmu gay Papa Yade maa ngi ko koy jaalewaat bu baax. di ko jaale woy juróom bu jigéen comprendre nga di ko jaale waa Tëngéej yëpp di wax Jules Baldé Junior yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko aljana Papa Yade yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko aljana Jibi Ama suñu frère bi tëdd yàlla na suñu borom fëgg boppam mu jub nekkaat ci ay activité am képp ku nekk ci ay tolof tolof rek yàlla na la suñu borom taxaw saa bokkal bi nga xam ne tey mu ngi ci ay problème nekk ci ay guddi yu lëndëm yàlla na ko suñu borom taxaw ba mu ñëwaat ci ay njabootam waaw ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barke yonent bi jaajëf frère. merci vraiment merci merci beaucoup.